méttee mu xat lool ndax ba ma yéeg ne duma nekk candidat Dakar benn fan a ci des woon ca suba sa lañu waroon déposer candidature ngeen jox ma opportunité boobu ñu ànd ak équipe bi nga xam ne ñoom ñëpp dama leen di sant di leen gëm ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw taxaw nelawatuñ amatuñ jàmm ñoom ñëpp ñu defar list bi ba yàlla dimbali ñu ba suñu liste bi ñu validé ko. bañ ko valide nag dama ne man danaa ñëw taxaw wax ak waa Ndakaaru sant ñépp gërëm ñëpp ah wax leen nag suñ candidature taxaw ndax nag metti woon na loolu ca forclusion bi ba ci tànnub candidat Dakar bi metti woon na waaye bi mbir mi amee itam ñëpp dañoo utal si ma ñii ñëw sama kër ñii di ma oo téléphone muy mag muy ndaw muy jigéen muy góor ñépp ñëw di mettitlu li xewoon bi loolu amee nag war naa leen wax lu tax ma dëggal sama candidature ndax bu fekkee ne li metti loolu yépp daf fee jaar ma nekk jigéen ji nga xam ne moom moo njëkk a nekk maire dakaar depuis senegal indépendant ba léegi mu nekk bunt boo xam ne ubbeeku na ubbeeku na pour jigéenu senegal yépp ndax nag dakaar musta am maire bu jigéen kon loolu bu amee dañ ci war a sant yàlla bu baax a baax a baax xam ne loolu ñu am ak i la boo xam ne war nañ ko toppatoo war nañ ko préserver niñ koy waxee ba nga xam ne képp kuy jigéen Sénégal rek lu mel noonu bu taxawee war nga mën a jóg taxaw ndax nag dañ fi am suñu ay maam yoo xam ne comme Aline Sitoé Diatta comme euh, les grandes figures Yacine Boubou euh, comme Ndate Yàlla ñooñu ñëpp bu ñu amee ay jigéen yoo xam ne taxawoon nañ xeex dëggal seen bopp wane ne jigéen baax na góor baax na may sant bu baax nag ah caucus des femmes leaders parce que ñooñu kat dañu taxaw ne ñoom dañuy xeex pour jigéen ñu bari nekk maire élection yi ñu jëm ca la ñu defee boobu invité ji jigéen ñi man ca laa bokkoon ñu investir ñu pour ñu nekk ay tête de ci réew mi yépp kon ñooñu war naa leen sant ak képp koo xam ne rek taxaw na di ma encourager di ma ñaanal di ma pousse pour sama taxawaay bii ma gën koo dëgëral ah tey il faut ma taxaw fii balaa dara di am ma sant ñëpp gërëm ñëpp wax leen li ñu jot a def te bilan boobu bu soobee yàlla bu campagne bi jotee danañ ci gën a dugub gën leen expliquer li ñu fi def fii yëpp ci Dakar li ñu def bari na bari na torop nit ñi nag nee nañ duñ communiquer bu baax waaye loolu danañ ci commencé wax léegi waaye bu campagne bi ñëwee danañ ko mën a gën a faram-fàcce ni ñu koy waxee ba Dakar waa bu nekk gis liggéey bi ñu commencé ah ci liñ jot a def xaw nañ ci am tuuti satisfaction léegi nag Dakar waaye ñoo war a seet ndax loolu ñoom neex na leen doy na leen ba bés bu wootee jotee sànni carte jot ñu seet fan la ñuy sànni seen carte.